salaamaaleykum mbokk yi bàyyi xel seen site web euh, Senego ñu ngi fii ci Touba euh, fii ci diwaan bu Mbacké euh, tey nag ñu fas yéene ànd ak yéen ci benn entretien ak soxna soo xamante ni yaakaar naa ne miinee su ko sax fii ci diwaan bu Mbacké ci métier bi nga xamante ni ci lay yëngu soxna si ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. mu mel ne tey Senego moo la seet si spécial tur bi naka la. man Matignan laa tudd waaw maa ngi leen di dalal di leen siyaar di leen eh, nuyu bu baax a baax a baax. Matignan fan nga dëkk. man maa ngi dëkk ginnaaw raay laa dëkk Paaleen quoi Paaleen ginnaaw raay waaw. bon man je suis né en 90 léegi boo xoolee daanaka mag laa de maa ngi sant yàlla. <laughs> soxna Maty tey ñu seet si la fa yéene ànd am ak yow entretien soxna si bu bëggoon a xam soxna Maty ci lan la yëngu. waaw man nag bon maa ngi yëngu actuellement maa ngi ci taxi bi en même temps sportif la waaw. yow gis nañ ne fii ci département bu Mbacké mën na ne yow yaay première jigéen bi nga xam ne. Euh, moo fi yëngatu ci lu mel nii lan moo la motivé ba nga dugg si lu mel métier bi. ah bon sant yàlla rek bon dara motivé wu xam ne liggéey moom amul góor amul jigéen loolu la rek. loolu loolu moomu ci dugal mais bu fekkonte ne bi nii maa ngi am benn xel ñaar naan lii góor waru ko def wala jigéen moo ko war a def affaire yooyu duma ci mës a dugg mais man dama jàpp ne liggéey moom amul góor amul jigéen quoi waaw loolu moo tax ma dugg ci te boo xoolee même bu dul taxi bi rek boo xoolee ci wàllu sport foot féminin fii au niveau de Diourbel fii Mbacke fii maa fi njëkk a def waaw maa fi njëkk a def foot féminin fii Mbacke yàlla dimbali na ma tamit bon moo yor sama oto di liggéey bon maa ngi sant yàlla daal. Hmm. tey jii euh, nga nekk ci métier bi nii euh, di taximan yow da ngay def allo dakaar wala da ngay taxi si dëkk bi wala. bon man moom. <laughs> lépp laay def quoi liggéey rek waaw lu dul liggéey waxuma ci waaw waaye lépp luy liggéey ku ma ci woo ma wuyu la su ma amee location Dakar damay dem dakaar ñëwaat waaw bu ma ko amoon ba xel xelkom dama lay yóbbu ba xelkom ñëwaat man intéressé wu ma l'essentiel doo ma fekk ci loo xamante ne bi nii ku ma ca fekk ma sëgg. su ma demul fenn damay teg sama tableau taxi dem liggéeyi pourquoi pas mais dara nekku ci waaw métier bu noble la ah. moom man war naa ci am ay 6 mois nag ay 6 mois 7 maa ngi ci bëgg a yàgg nag. da ngaa toog ba mu yàgg euh, nga jékki-jékki sa xel ne ci wala football bi moo doxatul nga ñëw. <laughs> non maa ngi football ba léegi maa ngi football ba léegi man yàlla dogal na Italie laa nekkoon quoi. maa ngi woon Italie yor sama séjour indéterminato comme ni ma ko waxee woon la fois passée avec euh, ak waa Dakar ak tusi maa toog ba neex ma kenn seexalu ma lem ma dagg bi ñëw Sénégal toog fii parce que loolu laa jàpp ne moo gën ci man terewul des fois été bi nii damay dem ñëwaat te terewul su ma ñëwee damay teg sama tableau taxi waaw dama opté loolu pour def ko métier di liggéey mais tamit maa ngi sant yàlla daal voilà. ok tey jii euh, soo ñu dikkaat ci métier bi mhm. par rapport ak euh, itali gi nga wax ak fii mhm. métier bi naka la demee naka la demee fii ci. département bi ndax loo ciy yëg yow ndax euh, ngay xam ne fii ngay milieu bi nga xool nga xam ne yow rek yaa fi ab yaay faal. Mm-hmm. ñu des ñëpp ay baay faal lan nga xam ne yaa ngi bokk ak ñoom di naka la nga koy dundee foofu. waaw loolu moom c'est vrai gis nga àdduna ba ci sa biir kër sax des fois nga dund lu metti des fois nga nekk ci bànneex adduna noonu la waaw garage bi ma nekk nii arrêt ba man yàlla dogal nañ ñëpp samay fans lañ gaa yëpp dañ ma fa mais des fois ñu lay dawal feem di la dunduloo loo xamul mais boo amee fulaak fayda est-ce que yaa ngi dégg fi may waxee ak benn caractère bi nii di nga xam ne yow moom waaw kenn du la dugg quoi man moom neexumaa ñeme jigéen laa waaye dama am ful la ci sama bopp kenn du ma yab <laughs> loolu moom yàlla dogal na ko quoi man moom bu dee caractère bi rek ak fulla ak fayda jàppal mati du ma tooñ nag ku yàlla di bind ndax tooñ moom bokkut ci lu yàlla bëgg waaye tamit kenn du ma tooñ man waaw noonu la demee. mais tey jii tim euh, ni nga ko waxee nii euh, ngay yëngu ci métier bi. Mhm. Euh, yaa góor ñi nii ngeen yi bokk milieu bi ndax yow bëccëg rek ngay liggéey wala nga heure yooyu liggéey wala da ngay liggéey guddi sax. waaw non liggéey guddi bi nag. liggéey guddi bi waaw mais tamit liggéey dafa am heure liggéey dafa am heure man sama liggéeyu bopp laa yor yoruma liggéeyu kenn. su ma liggéeyee benn heure bi damay ñëw sama gàlle añ sangu tëdd nelaw ba 5 heures génnaat su ma génnee liggéey waaw lu ma yàlla jox ma xam ne loolu la quoi waaw namu ma dara nag namu dara que ça soit clair mais. non déggoo li ma la namu ma dara man la neex ma koy def toog bi amul njëriñ yow mii di ma introsé leer na la ne su ma toogee sama gàlle lu ma soxla mooy loolu te damay lekk damay naan mais intéressé wu ma nit da ngay war a jóg di dem di liggéey di defi dara. est-ce que dégg nga fi may waxee gis nga am soxla làmb sa poos fajal sa bopp rek dara dàq ko ci àdduna barke Cheikh Rafal man moo ma gënal sàcc moo ma gënal fen moo ma gënal nit ku maanuwut parce que liggéey ci jaamu yàlla la bokk kon nañ dem liggéey mais kiy jaay ndoxam bi ci tali bi wala muy jaay gerte caafam sax bu ko ko xeebal quoi parce que liggéey la. est-ce que tey jii euh, mas nga am lu la ci jot tey ji nga dawal ci kenn ba agsi ci moom. muy client mu war ko jël mu ñëw xool muy jigéen mu reculer yooyu dee lay dal. waa dina may dal mais tamit euh, ku ma ci mos yóbbu tamit rek jël nga sama numéro te après foo demaat man ngay woo ne ma ñëwal yóbbu ma foo nekk booy après dañuy mujj nekk sax ay xarit que yàlla dimbali na ma am naa benn connaissance bi waaw man façon nit bu nekk day yéeg ci sama oto bi du li li ma jàkkaarloog yow a tax waaw yàlla dimbali na ma ci côté boobu. xanaa umpale gi ndax nit ku umpale moom kooku yoon jàpp ko ndax xamut quoi mais ki xam dëgg xam Matignon ku xam Matignon dëgg xam ne ci liggéey rek lañ ma xam man fii ci Mbàkke liggéey képp laa xam xaw ma lu dul loolu. di nga dem ba mu tey nga xam ne fii ak ni mu bindoo nii nga dugg ak koo xamante ni yenn saa yi xam nga rek muy comme sans roir jigéen nii la war a comportement ak yow ñu dugg ci lii comme sans pour comme tuba yooyu est-ce que faral di gis ñooñu nga xam ne. waaw waaw yooyu day am yooyu day am des fois mais ci milieu Touba bi lay ëpp man fii Mbàkke boo xoolee sorti ba rek sorti Mbàkke ba laa wax entrée ba boo fa taxawoon ne mata ñu indi la ci kër gi nekkuma fi gan nekkuma fi étranger gars yi xam nañ ma bu baax parce que xëy na tamit boo yow wax nga ko ci biir wax xam nga ma ci leneen lu dul taxi kon ça veut ci sport bi nga ma xam ba tax na sport boobu siiwal na ma ci région bi ba ñëpp xam nañ kon man soxlaatuma tur li ma soxla lenn rek la ku may gis gis ma ci lu baax loo xamante ne doone mati ñaa nga ne daan ne cam bugguma loolu j'aime pas. foo jàngee dawal. waaw man nag avant may dem itali sax mënoon naa dawal maa ngi doon dawal parce que tamit bon man moom wax dëgg yàlla damaa teel a dawal damaa teel a dawal dama daan bàyyi sama papa bu gaaree oto wala sama yaay ma sàcc caabi ji waaw wër dem koñ bi wër fépp <laughs> wër Mbàkke gi yëpp dox yi. waaw ñëw waa tegaat caabi ji ndànk kenn du sip action. non man déggoo lu ma la wax man mën naa ne sax xam nga liñ naan màgg dawal. Hmm. man màgguma dawal man sama papa otom dama daan teg ay coussin pour mën a jot kii bi pour dawal dama teel a dawal fonaa nag waaw waaw. macha allah tey jii euh, yaa ngi gis Sénégal situation bii nu nekk nga xam ne daanaka immigration bi ndaw ñi song nañu ko hmm. tey jii nga gis ay yaay faal sax di ci nekk di ci yor ay doom bay dem ba mujj di loru mhm. tey ji yow nga dem ba ag fi nga xamante ni moo di Italie nga suwaawaat ñëw Sénégal mhm. mais tey jii ban message ngay wax eh, soxna yooyu nga xam ne ñu ngi sóobu ci lu mel noonu te ñu mën a toog ci réew mi. waaw mais li ma leen di wax mooy li sañ sëñ Mountakha wax rek gis nga wërsëgu yàkkamti day am ñoo xam ne dañuy yàkkamti seen wërsëg te wërsëg moom daanaka nit des fois dina dina dina yóotu loo xam ne amaana sax bu ñëwee du gën ci moom. kon dañuy ñaan yàlla lépp lu ñu yootu rek na doon li gën ci ñun te man ay gaal yi du solution quoi man ku ma doon fay ay milliards gaal gii duma ci jaar su ma mënta jaar voie normale bii noo duma ci jaar noo je te soo sama séjour rek man boo bëggee ma woon la ko mais intéressé wu ma mais lan mooy tukki mais liggéey nga fay def fii boo toogee da liggéey grand ci kaw nga bëgg ko mm-hmm. voilà mais man maa dul nekk complexe kenn. waaw ay tukki tukki tur bi la rek mais tant que demoo mënoo xam fii da ngay toog ak ay booy di leen expliquer sax ñu naan non duñ la ko waxul dañ koy wax ci suuf kii dafa soof dafa lii xam nga waaw yow yaa ngi nii di tukki di dem di ñëw gaan bëgg ñu décourager loo duñ la déglu xam nga te xamuñu comprendre ñu fële pour nga xam réalité yi fokk nga dem fa dund fa noonu la demee te bi ma fa nekkee maa ngi dëkkoon ak sama famille wax dëgg yàlla mhm. maa ngi doon liggéey di football équipe bi ma nekkoon foofu ñoo ma jëloon en charge mais man maa toog xam nga wéet bi laa tàmmul xaw ma ko ma ñibbi si jàpp sama bopp terewut maa ngi liggéey maa ngi dégganteeg ñoom su ma bëggee dugg damay dugg génnaat mais pour dem toog fa moom toog moom nekkatul lu may mën daal. Hmm. tey ji fii ci Sénégal euh, soxna yi nga xam ne ñoom daanaka ay jaay ay marché jaay nangam jàpp na ne jigéen warut euh, mën a engagé wu ci liggéey yu mel nii xam nga leen di conseil ci loolu. non mais jigéen mën na dawal taxi loolu du dara taxi siste bëri na. xanaa kay dañ naan région de Diourbel fii man maa ko fi njëkk a def mais am na ñu koy def liggéey la mais sëñ bi yow lu góor def di def jigéen mën na ko def liggéey dafa am góor ak jigéen ah da nga mës a dem pourtant jaay góor da koy def góor day jaay góor day jaay ci marché bi lëjum yi gel yi di jaay jigéen ñi suñu yaay yi di ko jaay ci marché bi ay góor dañ koy jaay mais loolu du dara liggéey moom sa waay war na góor war na jigéen ñëpp ñoo war a dem liggéey yi waaw mais nit waroo di toog rek lépp yomb la ngay dépendre di xalal mooy loolu loolu moom du yëfu nit ku am jom sax nag waaw ku dara warut amut <laughs> ku war loolu boppam dara moo am ci àdduna waaw. tey jii est-ce que am na lu la mas a arrivé ci liggéey bi comme tey jii ñi nga xam ne moomun seen loxo wala ñi nga xam ne dañuy agrégé ñu nga mën nga mën a sa am ci ñoom ñu ne kii jigéen la leen ko néewal doole ndax loolu mas nga dund lu mel noonu. non c'est vrai. Hmm. waaw démb rek démb rek. demb rek yab naa benn waay fii dama tourné nii di ñibbi. gaale 22h may ma signalé nii jël code di tourné rek mu arrêté ma mu wax ak man xamul sax ndax ndeysaan ne xam nga rek yaay faal bay wax ak moom waaw ma ne ko foo jëm mu ne ma fële la jëm quoi Ndiobentaay Touba la jëm Ndiobentaay mu ne ko waa Touba mën naa nekk de sëñ bi si la ñuy waxaale ma ne ko foofu mille la quoi mu ne ma noo jàpp si rek sëñ bi xam nga 2500 laa yor nangam nangam dimbale ma rek. mais waa ji mi ngi ivre dafa màndi xam nga léegi ndeysaan ma xaw a am yërmande ci moom quoi mën na ko yégal ñu dem mais waa ji avant ñuy romb ñaari Baay Faal fii commencé na déconné ma seere oto bi ba mu jekk naka wàccal mu wàcc oto bi quoi après si la ma xool naan man noo wax ma ñaata la ma fay la mën na ko noo garaawut xaa xoolaatal beneen oto jéggal naa la ko xam nga yooyu day am da ngay yab nit dem ba ci biir mu lay jéem a dawal feem di la indil yoo xamul mais ñun yàlla suturaal nañu ba suñ la yabee nii sax di xaw a am man su ma xawee am benn dut bi nii rek xaw ma la du ma la du ma la jël sama oto quoi. da ay clients non c'est vrai am na ñoo xam ne moom wax dëgg yàlla suñ ñëwee du ma du ma du ma bëgg ñu dugg sama oto quoi voilà. Euh, tey jii fii ci diwaan bu Mbàkke ndax pare nga pour jàppale jigéen ñi wala gën leen a ñaax ñu gën a sóobu ci métier bi. bien sûr surtout surtout jàppale boobu nga wax parce que man ay nit dañuy ñëw sax ay gel ba ci ay góor doo ma jàngal dawal ma ne leen bien sûr su ngeen amee temps rek bu ngeen ma woowee dinaa ñëw ñu def essence gasoil dem fu ñuy jàngalee gars yi auto école foofu laa leen di yóbbu am na ci ay gel yoo xam ne man maa leen di jàngal dawal nii waaw 16 heures bi dañuy dem ma jàngal leen dawal waaw sànq maa ngi lay tooñ sax naan laan sama beneen oto bi dafa nekk entretien mais bu su paree benn gel laa koy jox quoi. <laughs> kon daal jamono ji mën nañoo xaar ci kanam tuuti rek. la yàlla maye nga yàlla waxut kenn dara. yàlla waxut kenn dara. Uh-huh. Uh-huh. kilifa yi fii comme ni ñu war a taxawoo soxna yi comme liñ ci ñu ngi fi sargal ay jigéen ñu bëri yu dem yu mel noonu ndax yow ëllëg yaa ngi séentu bokk ci ñooñu. waaw mais bien sûr. mais kuy def dara loo xamante ne bi nii lu raar la yaa ko fa njëkk def kay ñaan nga yàlla tamit bu ñuy loo xam ne fu ñuy tuddee jigéen ñi la ñu tudd la fa parce que tamit boo xoolee nga nekk jigéen def loo xamante ne waxuma la jigéen ñi sax seen xel da ciy nekk xalaatuñ ko yow nga ñëw def ko kooku moom bu ñuy sargal yaakaar naa kooku la ñu war a njëkk a sargal hmm. seconde mère pour man mais Maty ñu ngi koy gis muy dawal taxi ah nit ñi xam ko xamoon ko ci sport xam ko ndax Maty mhm. moom am na borom kër wala mi mhm. ngi wala <laughs> ndax xam nga liggéey bi itam dafa laaj uh-huh. ah, loo xamante ni mooy daanaka da ngay nekk en dara du la dérange fa borom kër wala waaw Maty amagul nag boroom kër amagul boroom kër mais euh, am naa fiancé <laughs> am naa koo xamante ne damay bëggante ak moom bu yàlla defee jàmm hmm. bu dee jàmm rek la ah, yàlla bëgg daag ah, waaw yàlla day xam moom ah. yàlla moom moo xam quoi on sait koy préparé sa ci sa carrière pour bu loolu amee tamit ndax borom kër da nga wax njaboot ndax loolu yaa ngi ci xalaataat pour bu dee ba yooyu yëpp am waaw mais bien sûr parce que du question de liggéey bi rek sax même bu dul liggéey jigéen bu ñëw ci àdduna ñaan nga yàlla màgg ba am borom kër fondé sa foyer am sa njaboot toog am déet jigéen bu nekk ñaan na yàlla loolu. mu wax la ko mu wax la ko wala mu ñàkk la ko wax. waaye tamit bëgg naa ëllëg su ma amee boroom kër. Hmm. yor sama njaboot suñ may adressé lu rafet lay doon. ok moo waaw lu raar lay doon mais pas ñu naan sa yaay kat doomu dof bi wala kat doomu nàngam bi doomu kii noonu loolu moom bëgguma ko. message bu mujj ci say mbokki soxna yi xam naa ñu tàggatoo rek message bu mujj bi nga xam moom nga leen di jox lu ma leen di rek sama mbokku jigéen yi nañ gëm seen bopp te xam ne waar moom liggéey li li araab yi di wax xidma ah ci ñëpp la baax baax na ci góor baax na ci jigéen da ngeen di bañ a toog rek naan góor a war a def lii jigéen a war a def lii loolu moom c'est terre loolu moom man xalaatuma loolu quoi man lu ma sentir def ci cadre liggéey dama koy def waaw l'essentiel bu leen sàcc bu leen mooy yàlla liggéey leen loolu la rek nit boo koy laaj di ko laaj sax bu yàggee sëñ bi ah bu ko waxut sax da lay jéppi ah. moo tax bu kenn laaj kenn waaw lu góor mën jigéen mën na ko waaw waaw yàlla na jàmm yàgg yàlla na ñëpp am jàmm. <laughs> ok jaajëf jaa ngeen jëf kon euh, kooku moo nekkoon Soxna Maty mbokk yi bàyyi xel seen site web Senego moom la amal nag tey entretien spécial ci kàddu gu Cheikh Beye ngeen ci àndaloon ñu lay sant yow di la gërëm ndax euh, yombal nga ñu mbir mi donte bari na ñu ko bëgg mu jafe lool ñu la ciy doolee sant di la doolee gërëm bu dee kàddu tàgg kàddu benn kàddu wax ne tàggatoo rek pour nga tëjee ko ah. waaw waaw loolu moom dëgg la gars yu bëri ñu ngi ñëw di ma woo téléphone dañ la bëgg a defal interview nii dama mujjoon di leen daw sax mosuma leen a bëgg avant koor ga avant koor ga ñu ma doon topp lii lii yaakaar naa yow mii sax yaa njëkk a ñëw avant koor ga ba tey la ko yàlla dogal. <laughs> mais am na question bu ma fàtte question bu ma fàtte muy tey jii euh, pour mënoon a xam journée bi rek xam nga tey jii bu fekkante yaa ngi mm, daw ci benn affaire tey boo xëyee di nga war a mën a am dix mille wala quinze mille waaw man moom wax dëgg yàlla bu dee taxi laay def nii ci biir dëkk bi man damay wàccaale ay vingt mille francs te aussi damay am gasoil mais bu dee dama génn def location sans dépend location moom beneen affaire la. waaw parce que da ngay toog xaar wala ma def allo dakaar ralli des fois damay ralli. Ah. te ci ralli laa njëkk def sax. dem dakaar ñëw. mooy xel yu garaaw daw nañu koy laal bañal loolu grand yooyu tamit ñun ci autostrade bi lañ doon dawal. inter lañ waay sa waay déggul ma la xolal xam nga doomo centro Milan falaa laa dëkkoon man waaw xam nga ne tali yooyu ak tali yi bokkul ah man damay dawal ba yegg ngay doog a xam nag kii jigéen moo doon dawal. <laughs> parce que man moom séquma ak ñoom loolu client bu ma la yëgalee sama oto aw maak ak yow wax ba ni ngay wàccee loolu yàlla dimbali na ma ci waaw bu la yàlla dimbalee nag nga nekk client bu ouvert ku baax hmm. di waxtaan ak man xam nga nit tamit du wax ak yow doo wax ak moom waaw man yàlla dimbali na ma ku yëg sama oto danga may bëgg mais yow gars yi di am fii ay quinze mille ay euh, dix mille yow nga man a xëy am vingt mille loolu xanaa gars yi du dañuy xool rek xam ne ki yaay Fall la ñu naan ah, ah. <laughs> dañ dañ ciy jàppale quoi <laughs> gaa gars dañ ci jàppale quoi dañ naan non yaay Fall bi déggoo la wax damay jël client fii jël naa fii benn booy ndeysaan sama morom la moom damaa xam sax te xaw ma ko mais yàlla dafa dogal dafa déménager dëkk Ilipor côté hmm. kër Ablaye Wade bi Pape Diop fi mu dëkk noonu hmm. dama ko yóbbu foofu dama dem ba yegg mu jox ma 2000. mu ne ko waa booy 1000 francs la mu ne ma non booy ceeneen rek demal mu ne booy bañal loolu gaar yow dama la waroon indi gratuite. mu ne ma noo booy si business bi la liggéey bi xam nga affaire yooyu noonu mu leer na la kii ndeysaan xam nga nekkul ne sax fay beeg yooyu quoi mais gis na la ngay liggéey daf la bëgg a motiver. pour nga gën a góorgóorlu. waaw loolu moo tax des fois muy demee noonu quoi. ok kon xam naa ñu jaajëfal la rek. waaw man tamit maa ngi leen di nuyu bu baax waa Sénégal di la di la di la nuyu yow sama xarit bi nga xam ne xuloo rek la fi nekkee ak man bu leen ñëwaat nag interview di dimi rek doy na <laughs> ah, kon jaajëf mbokk yi doon bàyyi xel ci Sud Sénégal kay ñu sox daloon soxna Mati ngeen gis ko tey ji muy yëngu ci wàllum taxi fii ci diwaan bu Mbàkke mu ne nag lu moom mooy soxna boo xamante ni moo ko fi njëkk njëkk njëkk njëkk euh, def fii kon na ko ñëpp xamee noonu sant gërëm mboolem ñi nga xam ne ñooñu doon bàyyi xel jaa ngeen jëf